Euh, suñu buggee jàmm am si réew mi euh, il faut que ñu dem toog waxtaan réew mi pencoo euh, mbirim réew mi réew mi moo jiital président makisal Sall di fi liggéey liggéey bu am solo si Sénégal tey président de la République wone na ouverture am sànq yaa ngi koy wone yaa ngi koy gis gi gis fii boo doon wax si euh, honorable Guy Marius Sagna mënul toog il faut que mu tontu la te njiit dangay yaatal sa xol di nangu dëgg nangu dëgg loo xam ne neexu la mais mënuñu ko président Macky Sall da keroog kenn ma wax ni euh, mu ne mu wax tam dañu barricade kër Ousmane Sonko te amuñu si benn benn benn benn firnde benn këy Ah, may wax ni tey de man de su ma doon Ousmane Sonko xam naa Ousmane Sonko dafay ñaan di dina ñaanal dina sant yàlla parce que su muy sant yàlla mooy mu nekk ci Sénégal dëkk bu am démocratie mu sant yàlla Sénégal président Macky Sall jiite ko mu nekk nitu koo xam ne xolom yaatu na mu nekk un président toléran parce que lu muy woote jóge sa kër ne kaa leen ñu ànd ma dem jëli këli ku nekk si si si palais bi koo xam ne peuple bi moo ko fa teg par la force de la rue nga xëy yow ñu jël la bañ gaañu gaañu bañ ko dee ñu indi la sa biir kër teg la fa pour que soo génnee yow yóbbuñ la kaso yaa ngi euh, toog si sa kër climatiseur daf dafa comme ça ñu bay si Sénégal rek la xew ak président